ñu ngi am mbégte dalal ci matinalu tey bi Mayel Thiam mooy administrateur bu APR Alliance pour la République ñu ngi lay nuyu di am mbégte lool nga doon suñu gan tey. Euh, soxna Ngom maa ngi lay euh, nuyu di la ziyaara di ziyaara ñi nga xam ni ñooy liggéey yow di ziyaara également bépp sénégalais boo xam ni mi ngi ñuy déglu. ñi ñu déglu ñëpp sans doute ak ñeneen ñu ngi xaar seen candidat ngeen wax ñu kan lay doon parce que xaar bi yàgg na euh, ñi euh, bëgg itam bari nañu lool euh, naka ngay séentoo boobulee candidat la nga yaakaar ne daal ci la président Macky Sall nar sukkandiku ba tànn kiy doon seen mbër ci élection présidentielle bi ñu dëgmal. waaw président de la république ñun ñoo ko jox carte blanche ci secrétariat exécutif bu APR ba pare. ne ko yebal ko ci ay naataangoom yi nekk Benno bopp Yaakaar nekk ay kilifay parti ak kilifay kuréel ba mu demee it ñooñu it euh, ni ko jox nañ la suñu bopp koo tànn kooku la léegi nag euh, boobaax léegi mi ngi xool ndax tànn yombul euh, ndax ñi bëgg bari na te it euh, jàpp nañ ni que ni ki nga xam ni moom la ñuy tànnal dana nekk ki nga xam ni dana mën a boole ñëpp dana nekk ki nga xam ni comprendre na euh, lan mooy plan Sénégal émergent dana nekk ki nga xam ni également dana mën a uuf njabootu président de la République uuf aussi njabootu Benno Bokk Yaakaar ak sénégalais yëpp d'ailleurs ba pare mën a wéyal liggéey bi nga xam ni euh, président de la République tàmbali na ko ci candidat yi nga gis euh, peut-être euh, xam naa ne sax doo ci ndax a tontu waaye naa la ko laaj rek <laughs> kan moo ci jege critères yi wala ñen ñoo ci jege critères yi. Euh, ñëpp jege nañu critères ndax xam nga man dama bokk ci ñi nga xam ni yàlla dama gëm ni que ni yàlla ëppal na boppam di xaar ba mag Sall di tànn pour ni kii mooy nekk président de la République kon ci ay sabab la rek. Hmm. kenn ku ci nekk yaa ngi sabab mooy làmb ja rek mbër mu nekk bu demee ne day bàkku. waaye nag euh, li nga xam ni ñun moom solo mooy li nga xam ni euh, moom la ñëpp war a gëm mooy que ni élection yi di ñëw kenn waru ko gis gis-gisu sama bopp dañ ko war a gis gis gisuk ñu téyewaat euh, régime bi wéyal liggéey bi nga xam ni président de la république tàmbali na ko hmm. mais noo gisee kon gars yi tàmbalee wax ne ñu tànn ma ak ñu bañ maa tànn damay dem ndax ñooñu dañoo gëm ne euh, non seulement ils sont présidentiables mais euh, seen chance aussi kenn waru leen ko xañ est-ce que loolu posé wul président Macky Sall ba tax euh, tànneef gi wala fësal ki mu tànn yéexee nii. walaay loolu ay waxin la rek kenn ku ci nekk yaa ngi bàkk sa bopp bopp. te bari na sax ay wax yoo ay wax yoo xam ni sax jógewul sax ci ñi nekk kandidaa waaye ñu ngi jógee ci ñi nga xam ni ñoom mu ñoo leen boot. am na ci kandidaa bu ñu dégg dem waxal boppam. waaw am na ci ñu wax loolu loolu waxin la dama jàpp ni rek waxin la xam nga léeg-léeg boo xoolee signature yu mbër yi bu ñuy signé seen contrat yi. kenn ku ci nekk danaan ko bu ñu demee ba taxaw danaa la def nii tëkku sa moroom nangam waaye bu ñu demee ba ca làmb ja rek Euh, wax yooyu yëpp. Euh, ñii di daw di génn saako yi. waaw ñii di génn <laughs> daw di génn <laughs> exactement donc euh, jàpp naa ni wax la rek pour teg pression ci président pour gën a fësal seen bopp. waaye ma di la xamal rek ni que ni président Macky Sall mi ma xam ay pression yóbbu ko ndax ku seetlu d'ailleurs bi mu nekkee ci nguur geeg léegi bari na ay situation yoo xam ni. nit ñi jàppoon nañ ni que ni pression yi ñu ko teg dal na ko ba mu voilà mais terewul euh, saa yu jógee pour def tànneefam dana ko def ci xel mu dal dana ko def ci teey dana ko def ci xalaat dana ko defit ci bëgg réew mi am candidat bu ñëpp di ànd narta yomb bu ñu xoolee yëf yi ni mu demee euh, léegi est-ce que am ngeen ay matukaay yoo xam ne jël ngeen ko pour peut-être wañ loxo ñenn ñi ba du ñu def euh, leneen lu dul ànd ci fu président Macky Sall déggoon nañ fi ne par exemple nar ngeen leena a koñe ci euh, parrainage bi surtout parrainage des élus am ay garantie que ne élus yi duñu pare ne keneen ku dul candidat wu Benno bi yéen yeneen matukaay ngeen jël pour peut-être ñëpp des ci làng gi xam nga bu dee wàllu parrainage dafa am lu ñu tëral léegi dañ ni ñi nga xam ni ñoom la ñu fal mën nañoo ne ñenn ñi ñu fal ak euh, également citoyen bu mu mën a doon nga bokk ci parti politique nga bañ a bokk ci parti politique donc boo xoolee foofu boo nee dinga ki mën a koñe nit lu jafe la jàpp naa ni que ni euh, élection lañ jëm élection euh, appareil politique la élection également ay nit la yu ñëw di tànn ki leen neex te jàpp naa ni te loolu ci la ñàkk li nga xam ni moom la ñu war a def mooy fexe ba mbooleem ku bokk ci Benno Bokk Yaakaar ak ñi nga xam ni ñëpp jàpp nañ ni que ni li chantier yi président de la République commencé dañ ko war a wéyal ñu fexe ba ñooñu ñëpp gëm ni que ni élection deux mille vingt quatre dañ koy gis ci gis-gisu téye nguur gi pour plutôt que gis ko ci gis-gisu intéret personnel. final loolu. ku nekk candidat ku ci nekk boo demee ba gis ni que ni ay la yëwan mbooloo mépp a ngi topp ci ginnaaw candidat bi président tànn su boobaa da ñëw nekk ci rang yi. bu ñu ko deful ndax APR tàmmal ngeen ñu di rëq ndigu ñenn ñi nga xam ne président daf naan aw leen fii ñu aw fee lan ngeen waaj est-ce que yéen a ngi euh, préparer ay sanctions wala commencé ko sax xëy na xëbalee gars yi pour ñu euh, yem fi ñu leen loo non euh, d'abord damay rectifier lenn te ku ñu ndigu ku président wax jaar leen fi ñu bañ fa jaar. liste parallèle kat président yàgg na ci rëq ndig. Euh, euh, non da nga naan ñi nga xam ni dañu arrange dañu rangé wul ci lii ñu parti bi mag président nag moom mooy incarné parti bi. ba tey ñoo wax mais bu ñu toogee ñun ñëpp nekk ay nawle ba waxtaan ba juboo ci benn ligne mais ku ci ku ci jàdd moom ah, lu dal ci kaw yaa ko teg sa bopp. bokkul ak élection yi élection yi li ñu bëgg ba ba bésu élection yi dañuy def suñu kemtalaay kàttan pour que ñëpp ànd nekk benn pour ñu conserver pouvoir te sax duñ ko yemal rek ci candidat yooyu am na sax ñoo xam ni euh, nekkuñu ci coalition Benno Bokk Yaakaar euh, te ñi ngi dox di waxtaan ak ñoom pour que ëllëg ñu jàppale suñuy candidat am na sax ñu nekk ci opposition bi Euh, ñoo xam ni keroog ba président Macky Sall ne moom bokkatul bari na ci ñoo xam ni sax nee nañu ku Macky Sall tànn moom la ñuy jàppale. Hmm. kon ah ouais, opposition bi opposition bi bari na ah bari na ci opposition bi ak ci société civile parce que. ñan la ñooñu. non euh, du ma wax seen tur bu ci bu buñ ci tollee ci jamono di ngeen di ngeen ci xam dara parce que dafa bari ñoo xam ni euh, lii bañuñu yoon bi président Macky Sall tëral bañuñu itamit weddi jeexital yi nga xam ni am nañ ko bañuñu it ñu wéyal li nga xam ni moom la président de la république tàmbali da cee bëri bëri na ci opposition bi bëri na ci citoyen yi euh, biir coalition benn Benno Bokk Yaakaar kenn waxatu ko donc chance yooyu yëpp buñ ko amee dañuy liggéey pour fexe ñëpp ànd nekk benn pour que suñu candidat gagné en 2024 loolu ngeen di dox pour seen candidat am ko am nañu ko tàmbalee doxal seen bopp dégg nañ fi campagne nee naa waaw dégg nañ fi leneen ak leneen gis sax ñoo xam ne wàccal nañu seen bopp ci terrain bi dem seeti ay kilifa ak ay nit ngir ñu jàppale leen euh, ci seen yoonu présidentielle boobu ñu jël est-ce que loolu APR taxaw na ci est-ce que am na lu ngeen ci def pour que peut-être mu dakk parce que loolu bu bu continuer xaajalikoo bi moom leer na. pour euh, def ci dara mu dakk euh, lenn dong la ñu am mooy mën a waxtaan ci suñu biir di waxtaan ak candidat yooyu te ñu ngi koy def. dafa di nag euh, doomu aadama yëpp du ñu benn am na ñoo xam ni seen bëgg-bëgg dañ koy fësal fu ñu mën a toll lu nekk lañ ciy def lu nekk la leen di jaral am ñoo xam ni am na ñoo xam ni ci ñun ay bari na ci aussi il faut ñooñu aussi ñu leen di wax dellu te nag chance yi ñu am ñi nga xam ni ñooy wax ëppale wuñ leen chance euh, te damay faral comme li ma wax rek nii yàlla ëppal na boppam di xaar ba Macky sàll di tànn pour mu naan kii mooy président de la république bu Sénégal lu suba donc euh, ñooñu dañu nekk ci sabab xam naa puisque président de la république moo waxoon ni ku bëgg nekk kandidaa nanga ko ko wax ñenn déggewuñ ko noonu ñenn dañ koo dégg ni ku bëgg a nekk candidat ah defal sa campagne waaw alors que yëf yi demeewul noonu euh, mais jàpp naa ni ñoom dañuy def campagne pour ñu tànn leen waaye campagne pour ñu tànn leen bokkul ak campagne pour ñu gagner élection présidentielle 2024 te je pense que bis bu ñu tollee ci war a def campagne pour ñu gagner élection 2024 su boobaa ñoom ñëpp daan ñëw nekk dans les rangs loolu la ñu am nañ ci yaakaar bu baax a baax kon daal sa dal na ci tànneefu candidat bi du tas APR du tas Benno Bokk Yaakaar. xam nga ñun yàgg nañ ñu wax ni que nii saa yu élection ñëwee rek ñun ñu tasaaroo loolu moom yàgg nañ ñu ko jiiñ waaye nag euh, saa yu tasaaroo bi tasaaroo bi mi ngi nekk ci ay élection yi nga xam ni dafa nekk ay gox-goxaan bu dee gox-goxaan tasaaroo bi moom ñun ñoo ci champion bu dee voilà mais bu dee élection nationale moom élection président de la république ñun moom euh, loolu kenn duñu ko waaw dañuy dañuy bennoo dëgg dañuy bennoo ànd dem jëli ndam li mm. waaw comme ni ko ñoom Sadio Mané defoon rek <laughs> alors ci euh, remaniement bi ñu annoncé jàppoon ne peut-être euh, dina doon occasion président Macky Sall pour ñi nga xam ne ñoo ngi am taxawaay bu mu apprécié wul parce que ma la déggee rafetlu woo ñenn ñi niñ fësalee seen candidature ak sax yenn kàddu yi nga xam ne dafay nuru défiance envers le président mënta nekk occasion peut-être pour mu seppi ñooña tegee leen ne doxal ak ñeneen. xam nga président de la république noonu mas naa ko dégg ni mu ni gën a métti ci moom mooy jamono yi mu war a def remaniement ministériel que day ñàkk ay xarit. waaw parce que day ñàkk ay xarit xam nga euh, dafa di nag yi fii ñu jëm nii koo xam ni nekk nga candidat te vraiment nekk nga candidat euh, pour élection présidentielle yow sa intérêt la sax nga bañ nga bañ a bokk ci ci gouvernement. donc euh, man jàpp naa ni que nii du ñu àgg ci ay sanctionné déedéet eh, dafa di nag moom jëmmi jamono ju nekk moom mooy xool. lan la liggéey bi laaj ak ñan yan profit la laaj mu jël leen teg leen fa mais ala kulli kooku moom jarul sax ñu ci sori kenn mënta nekk candidat élection présidentielle ba pare di garder say fonctions gouvernementales ne serait-ce que pour nga mën a dem def campagne ah kooku loolu moom ah, ala kulli moom kenn du mën a nekk candidat ba noppi di wéy di nekk ci gouvernement bi. ñi fësal itam wala ñiy def ay euh, xeetu campagne avant l'heure ñooñu itam euh, man xam naa ne sanction yi xam nga ci dara ndax yaay administrateur APR. Ah, euh, ñiy def campagne avant l'heure merewoo leen leen ci wala président Macky Sall merewu leen. bu ma sañoon du am bu ma sañoon du am waaye xëy na ñoom noonu la ñu déggee woon waaye président na mu waxee woon moo doon ku doon candidat. na nga ñëw wax ma ko ndax bañ ko ne jox nañ la carte blanche su ko neexoon mu bañ laaj kenn nekk euh, kuy candidat wala ku dul candidat mënoon naa yeewu suba ni leen euh, voilà diw laa mais dafa di ku ñu may la lépp nga jël lépp bokkul ci fi gor loolu tax euh, ñu leen woon ku nekk candidat wax ko président am na ñu wax seen candidature président te kenn mësu leen dégg fësaluñ ko bon ñoom xëy na loolu noonu la ñu déggee waaye. tolloguñu fa nga xam ni dañuy taxaw saytu kan kan moo ci méngoo ak euh, li ñu war a def wala kan moo ci méngoowul ak li ñu war a bu buñ ci buñ cay toll mooy bu président ne diw laa tànn su boobaa daañu xool kenn ku ci nekk sa taxawaay et puis ñu taxaw saytu hmm. mhm. gouvernement booba ñuy xaar euh, euh, naka la war a mel xëy na pour jeexal mandat bi en beauté pour que liggéey bi daal ca cëppaandaw la mu mën a mucc ayib gouvernement bi xam nga président de la république li mu mës a euh, def ci lay wéy mooy gouvernement boo xam ni dana mën a àggale liggéey bi bul fàtte ni que ni réew mi yëpp chantier la foo dem chantier la BRT baa ngi nii euh, autoroute euh, Ndar baa ngi nii autoroute Kaolack baa ngi nii ak yeneen ak yeneen ak yeneen i chantier yoo xam ni àggagul te président de la république ba bés bi muy jébbal lenge yi dafa fas yéene def liggéeyam bi nga xam ni moom la sénégalais di seenu ci moom kon bokk gouvernement bu koy gunge day nekk gouvernement boo xam ni ña ca nekk dinañu nekk ñu xarañ ñu xam ñu comprendre également lan mooy plan Sénégal émergent comprendre également fan la réew mi tollu ci adduna bi ci sous-région bi ak lan mooy bëgg-bëggu sénégalais yi pour wéyal liggéey bi nga xam ni président de la république tàmbali na ko maintenant euh, jëm yi euh, Euh, amul solo kenn ku ci nekk euh, président xam na la xam na fan nga ko mën a jàppale te équipe la war a def te équipe boobu euh, dana ko def ci anam yi nga xam ni mooy yi ma la wax ci anam yi nga xam ni dana nekk équipe bu mën a àggale li nga xam ni moom la tàmbali nii pour le moment. équipe bi fi nekk gouvernement de combat lañ ci waxoon waaye boobu ba tey gis nañ ne jafe-jafe yi sénégalais itam euh, sëñ bi Thiam wàññeekuwul noonu de dund gi dafa cher mbënd maa ngi nii ak yeneen problème immigration clandestine bi sànq temps may ñu woon ñu ñëw ci waaye jafe-jafe yooyu gouvernement de combat bi mënu ko lijjanti ndax bee di ñëw dana mën ci yëf yi lu bari. xam nga bés bu jafe-jafe ñàkkee rek mooy gouvernement waratul am jafe-jafe moom day am ala kulli haal looloo tax ñuy taxawal gouvernement d'ailleurs waaye dinga nga régler jafe-jafe bi beneen jafe-jafe feeñ àdduna moo demee noonu bërki démb rek gis ngeen Suède ak euh, réew yu développé yooyu ndox mi ñëw ravagé leen euh, terewul euh, dañuy wéyal di di doxal seeni activité gouvernementale États-Unis bi mbënd mi nañu wax ni que ni également def nañ ci ay jéego yu rëy parce que maa ngi fàttaliku première année bi ñuy ñëw au pouvoir école toog na ay ñaar ñetti weer yoo xam ni que ni pour xale yi jàng en paix c'était tout un problème ndax ay dañ fa dëkkaloon ay nit te léegi dañuy wax ubbi tey jàng tey kon lool rek wane na lu bëri euh, maa ngi masawu également suñu mbokk yi nga xam ni dañoo nekk ci mbënn mi adduna bi moo soppeeku ndax nit ñi taxaw nañu taxawaay boo xam ni jëmale ko ci alam ji ba nga xam ni fi ñu toll nii yëf yi ëpp na suñu loxo Sénégal rek adduna bépp la moo tax euh, ñi ngi démultiplier rencontre yi. Ah, sommet sur le climat barki sur le climat barki démb war a dem COP. Euh, vingt euh, fële fale à Dubaï ak yeneen i daje ak yeneen i pexe yu ñuy def loolu adduna bépp la waaye li am solo mooy boo amee lu ñu bett rek ñu war a taxaw taxaw andi ca lañ ca mën ci saafara. wala et puis anticiper également pour yeneen at yi loolu je crois gouvernement mi ngi koy def bu baax. Mm-hmm. ñu jeexal ak mbiram Ousmane Sonko kaala ndax euh, ñetti at euh, lu mu gàtt gàtt mi ngi nii Sénégal daanaka mënoo wax euh, te tuddoo ci loolu li mu jur ci réew mi aussi moom moo ko waral ak sax ci bitim réew ndax coow li weesu na suñuy frontière ñu bari nag jàpp nañu ne daal président mag Sall xëy na balaa demam a gën a rafet kaawu Sonko mu lijjanti ko ay intellectuel doon sàkku bàyyi négandiku ñeneen ñi sax ne nan ko bàyyi ndax loola mooy jàmmi Sénégal mooy itam taaru démocratie mi ñu jàpp ne xëy na dellu na ginnaaw bu baax a baax. ci diggante at yi présent Macky Sall toogee ci bopp réew mi lan nga jàpp ne mooy saafara wala lan la président Macky Sall war a def ci kaawu Sonko. waaw ginnaaw bi ma la waxee ni daf ma tiis trop ci may wax koo xam ni caabi da ko féete ginnaaw waaye nag boo xoolee samay responsabilité également dama war a bokk ci ñi nga xam ni lu ñu wax wala jéego bu ñu dox dañ ko war a def pour taxawal li nga xam ni mooy suñu réew taxawal suñuy bànqaasu réew ñu fonk leen euh, intellectuel yooyu nga wax man dégguma leen woon keroog euh, bi ki ngay wax noonu di woote naan. nañu tudd turam. nañu génn euh, dama ko ormal rek man dama bëggoon bu ma dee wax ci nit mu jàkkaarloox man waaye comme yàlla def na fa mu nekk man am naa chance su jàkkaarloox yow nii di wax ci sa micro te moom amul chance boobu fi mu nekk nii moo tax ma bëgg ko ormal mais nit ku taxaw naan euh, génn leen ñu taal dëkk bi mais intellectuel yooyu man dégguma leen woon kenn déggu leen woon. kenn déggu leen woon bi ñuy wax naan nañu jël Macky Sall def ko nañu deful Samuel Doe kenn déggu leen woon moo tax euh, dama am gàcce te intellectuel li nga mandarga bi njëkk ci intellectuel mooy xel mu jub te xel mu jub euh, bokkul ak euh, xel moo xam ni day jiital bëgg-bëggam te ñoom loolu la ñu def ba tax na man ba ñu defee loolu la leen génne ci communauté scientifique bi ndax loolu ñu def wax yooyu ñuy wax teguñu ko fenn lu dul seen bëgg-bëgg donc man pour man du ay intellectuel ñoo wax mais ay sénégalais yu am seen bëgg-bëgg gumba tëx lu euh, de defi pexe pour que seen bëgg-bëgg am waaye li nga xam ni moom moo am solo mooy réew mi ñun ñoo ko bokk tey ki nekk tey pouvoir suba day nekk opposition ki nekk opposition nekk suba au pouvoir kon ñun ñëpp ñun ñoo war a liggéey pour que banqaas yi taxaw ndax ku ñëw au pouvoir fekk fekk fi bànqaas yu dëgër yoo mën a liggéeyee waaye boo féetee boor bee rek lu ñu wax nga ni lii jaaduwul euh, nangam nangam ba noppi madame Ngom mën nañu lu tax du ñu xalaat yeneen sénégalais yi nekk prison. am na ñoo xam ni ay cent mille francs problème mu cent mille francs ci lañ leen jàpp tëj leen prison mais ñooñu ay sénégalais lañu ah gënuñu leen. ñun ñoo ñoo euh, feebar yi ñuy rey ñoo ko bokk garab yi ñuy faj ñoo ko bokk te saa nafsin saayihatil mawti bu dee wax nañu waxal sénégalais yëpp waaye koo xam ni da nga taxaw woote pour taal dëkk bi ñëpp dégg ko intellectuel yooyu ñëpp dugg seen mbàjj tey yoon jóg te ñu am nag ay magistrat yoo yoo xam ni ñoom euh, ay jëf ay jëf lañu jël xool ko saytu ko ba gis ni jëf yi kat daan sangam lañ ko war a daan ñoo ay magistrat yooyu ñoo ñëw jël décision moo tax ma naan am du ma nangu kenn naan prisonnier politique dafa am Sénégal man dëkk dëkk naa ci ay réew yoo xam ni am na ay prisonnier politique waaye ku jóg tey def am njombe mais euh, nga nekk euh, ci tarixa bi wala tarixa bële nekk ci équipe nawetaan bi wala ci équipe nawetaan bële parti politique bi wala parti politique bële mais koo mën a doon njombe bi nga def dañuy taxaw saytu ko buñ ko saytoo dañuy daal di wëlbatiku xool lan la ca yoon war a dogal ñu dogal loola ñu wëlbatiku daal ni prisonnier politique xanaa kon prisonnier religieux war na am Sénégal prisonnier ñi nekk ci nawetaan yi war nañoo wax ni am nañu suñu prisonnier sportif ak prisonnier daayira yi ak prisonnier médiatique ak prisonnier tarixa yi. kon daal ma la déggee ci gàttal ànduloo ci liberté provisoire wala libération bi ñenn ñi di sàkkul Ousmane Sonko. nekkuma ci naan damay ànd wala ànduma ndax euh, kenn yéenewul sa nawle caabi féete ko ginnaaw mais li nga xam ni moom duma ko négocier mooy suñuy bànqaasu réew dafa war a taxaw jub xocc te ku leen nar daaneel réew mi daal sa kaw. jërëjëf Mayel Thiam administrateur APR amoon nañu mbégte dalal la ci suñu watinaal bi ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi lay gërëm euh, madame Ngom di gërëm sa collaborateur yi di gërëm bépp sénégalais bu jëloon ci ab tuuti di ñu déglu. jërëjëf jërëjëf